Sénégal man euh, Ousmane Sonko di député à l'Assemblée nationale du Sénégal waaye it euh, di njiit parti bi ngeen xam muy Pastef les Patriotes maa fas yéene dellu waxtaan ak yéen ci li nga xam ne lu am solo la cim réew mooy gafag ak réew mi nga xam ne dañoo toll ci jamono juñ koy càmbare xam ngeen am réew dafa am lu ñuy wax budget budget nag mooy tënk lépp loo xam ne ci at wi ñu dëgmal lépp luy alalu réew mi li ñu yaakaar ci alal lu ñu war a dajale ci réew mi dañ ko ci xayma waaye gannaaw bu ñu xaymaa loolu it fépp fi ñu bëgg a dugal alal googu war a yitteel askan wi dañ ko fay tënk loolu la ñuy wax budget mooy bu ñu nee ci alal mooy li ñuy jëlee ci lempo gi li ñuy jëlee ci yeneen xeetu alal yu bokkul ak lempo gi nga xam ne tey li ñuy jëlee ci àll gi suñu jaay jaayee bois bi wala li ñuy wax recette domaniale wala yeneen ak yeneen buñ ko dajalee ba ne mat na trois mille sept cent milliards moom la ñu yaakaar ni dañ ko am ci deux mille dañuy wax tamit trois mille sept cent milliards yooyu li nga xam ne mooy. jàngoro askan wala mooy yitte askan wi li jëm ci pàcc li jëm ci njàng mi li jëm ci mbay mi li jëm ci càmm gi li jëm ci yeneen ak yeneen yu mel noonu bu nekk ñu ne nangam lañ fa war a dugal bu ngeen gisee nag tey ma ñëw toog ne damay waxtaan ak yéen fas yéene def benn série de vidéo yoo xam ne bés bu ne dinaa jël lenn ci budget boobu waxtaan kook yéen li waral loolu lu gàtt la bu ci njëkk mooy assemblée nationale bu ñuy saytoo loolu dafa di bërëb boo xam ne jafe na nga wax fa xam-xam parce que temps bi ñu lay jox pour nga wax gàtt na loolu temps boo xam ne diggante ñetti minutes ñetti simili ak juróomi simili gouvernement bi moom dina jël lu ëpp juróom benn weer di préparer budget bi préparer ko ak ay ministère am préparer ko ay direction générale am préparé ko ay direction am daal di tënk loolu yépp ci document bi ñu indi ko assemblée yow boo waree wax ci lu jëm ci paj mi wala ci njàng mi ñu ne la juróomi simili dong nga am pour wax ci loolu ñun ñëpp damun ngeen d'accord ak ñun ni lu gàtt gàtt la ba nit du ci mën a wax lu xóot ñaareel bi mooy condition yi ngeen gis assemblée nga xam ne lu ci ëpp malheureusement en tout cas lu bari ci député yi fa ne réer nañu mbir lan moo leen indi assemblée nationale ba su nit di wax ñu ne fa di yuuxu di xaste di saaga ba fu ñu waroon toog mu doon débat d'idées muy sottante xam-xam malheureusement kenn mënu fa wax xam-xam comme ñun nag Pastef dañoo fas yéene indi xeetu politique gu bees xeetu politique boo xam ne lépp dañ koy teg ci xam ak xamle lépp dañ koy teg ci wax loo xam ne day jëriñ askan wi moo tax ñu ne nag jot na ñu fexe ba askan wi kenn ku nekk ak niveau ba munti toll nga xam lan mooy budget ak budget bi nu mu tëree ak nan nga ci war a mën a gisee sa bopp par rapport ak li nga xam ne mooy say say mbébét yow looloo waral ñu ne dinañu def quelques vidéos yoo xam ne dinañu gën a xuus ci mbir mi waxtaan ci yéen ci mbirum budget bi budget bi ñu war a wote nag mooy budget bi war yor Sénégal ci at wi ñu dëgmal muy deux mille vingt budget bi ñoo ngi ko natt ci xayma ci alal trois mille cinq cent soixante treize milliards la ñu ne moom la ñu yaakaar ni lu ñu war a mun a dajale la ci li ñuy wax budget général mooy li nga xam ne ci lémp gi lay jóge li nga xam ne dañ koy lebi bitim réew li nga xam ne dañ koy jëlee ci yeneen xeetu euh, prélèvement yi loolu lépp boo ko dajalee ne nañ trois mille cinq cent soixante treize milliards. la ñu yaakaar ni nguuru Sénégal dina ko dajale ci at wii ñu jëm muy deux mille vingt trois mille cinq cent milliards yooyu nag ñu ngi ko séddale ci lu mat quarant deux postes budgétaires quarante deux postes budgétaires yoo xam ne boo ko seetloo am na ay ministères trente trois ministères yoo xam ne ku nekk am na lu ñu la ci jagleel am na it ay institutions. muy juróom-ñaari institution mu am benn boo xam ne la ñu war a fay ci bor bi la la ñu war a fay ci bor bi mu am ci benn boo xam ne nag moom la ñuy wax les charges non réparties mooy boo dajalee alal gi yëpp dina ci am loo xam ne duñ ko séddale dañ koy bàyyi ne moom mooy doon reserve ñu bàyyi nguur gi mu xool nu mu koy utiliser par rapport ak ay besoins yu signalé wu 33 ministères yoo xam ne boo ko boolee institution yi ak poste bi nga xam ne moom la ñuy fayee bor bi nga teg ci li nga xam ne les charge non réparties mooy les mille cinq cent soixante treize milliards lii nag la ci ëpp solo mooy kuy xayma dëgg dëgg dëgg nu ñu yore réew da nga koy xayma diggante option politique yi nga xam ne ñi yor réew mi moom la ñu def mooy li ñu diggeek askan wi parce que budget bi dafa war a refléter option politique yooyu mooy ku am sa programme ne programme bi mbay laa ci jiital teg ci càmm teg ci éducation teg ci euh, santé normalement budget bi dafa war a firnde loolu waaye bu dee budget bi dafa ñëw jaar nële par rapport ak li nga diglante woon ak askan wi bu boobaa budget boobu méngoowul ak li nga diglante ak askan bi muy benn ñaareel bi budget boobu dafa war a méngoog li nga xam ne mu war a doon priorité askan bi ci fi mu toll ci développement wala ci sous-développement ci ñaari fànn yooyu lañuy ñuy xaymaa budget bi ci la ñu fas yéene waxtaan ak yéen ma fàttali ni Macky Sall ci waxam boo seetloo budget bi boo demee ci point six bi dafa ne investissement yi ñu war a def ci budget bi dafa war a méngoog li nga xam ne mooy ay priorité am ci quinquennat bi ci juróomi at yi nga xam ne moom la war a toog ci bopp réew mi ñu ne ci naka la mu ne benn bi mooy nañu yokk li tubaab bi wax l'offre en infrastructure socio-économique structurante ainsi que les services de base mooy lépp li nga xam ne dafa war a jëm ci tali yi ci piste rurale yi et cetera waaye services sociaux de base yi nag mooy lépp war a jëm ci poste de santé yeeg ci yu yu demee noonu ñaareel bi mu ne amélioration continue des systèmes éducatifs et de santé pour rendre pour les rendre plus équitables et accessibles mooy lépp li nga xam ne jumtukaay yu ñuy fajoo la nañu fexe ba yokk ko ci quantité waaye nañu fexe it ba yokk ko ci qualité tasaare ko wasaare ko ci dëkk ci at ci Sénégal yépp ba fu nekk fu waaye nekk rek mun faa am pajukaay bu méngoog li jamono laaj ci fi ñu toll nii ñetteel bi mu ne euh, le l' amélioration continue du système éducatif et de santé pour le rendre plus équitable et accessible mooy njàng mi ñu fexe ba njàng mi mu doon loo xam ne lu mucc ayib la euh, ñeenteel bi mooy renforcement de la sécurité de l' accès à l'eau potable de l'électrification rurale et de l'assainissement des lieux de vie des citoyens mooy lépp lu jëm ci ñu fexe ba sénégalais bu ne dootul toog ba jooytu ndox bu muy naan ci ndox gu sell ñu toog ba sénégalais bu ne ak fu mu munti nekk Sénégal dootul jooytu courant muy électricité waaye ñu fexe ba sénégalais bu ne fu mu munti nekk inondation dootu ko dal wala ñu naan nu ñuy def ba. Euh, gaanu gaanuwaay ndox mi bañ faa taxaw mooy assainissement ñu branché leen ci ay égout ak yu mel noonu juróomeel bi mooy li ñuy wax l'inclusion sociale et l'équité territoriale mooy fexe ba Sénégal yi yépp nag ak xeet boo mun ti bokk ak diine boo munti bokk ak région boo munti dëkk ak euh, situation fisique boo mun munti nekk ñu fexe ba nga sentir sa bopp ni Sénégal nga bokk waaye it li ñuy wax équité territorial mooy gis nañ ni wax dëgg yàlla Sénégal boo fi wër boo duggee ci àll bi dugg ci yenn régions yi wala yenn départements yi da nga naan est-ce que maa ngi Sénégal mu mel nii lépp dañ koo jël concentré ko ci benn bërëb ñu ne loolu moom mu ne diggée na nu muy fexe ba loolu ñu dindi ñu dindi ko fi ba ñëpp tolloo région yëpp ñu fexe ba ñu jegante en tout cas ay niveau ak juróom benneel bi nag mu ne la création d'emploi fexe ba liggéey am xëy am rawatina xëyu ndaw ñi kon lii su ñuy càmbar budget bi ci base bii lañ ko war a càmbare est-ce que lii mi ngi ci budget bi ak naka la fi nekkee gaa mënul ñàkk ne ci budget bi parce que budget su dee bii yëpp dafa correspondre ak ay ministère ministère bu ne nu mu tuuti tuuti bindal nañ la quelques milliards waaye lii dafa waroon nekk priorité mooy moom la ñu waroon gën a cëral ci budget bi est-ce que loolu am na ma dellu si ci chiffre budget bi càmbarkook koog yéen pour leen ni loolu am na lu si am lu tuut waaye nag des na lu bëri dama wax keroog assemblée ne ministre bi di mois quel budget tu as et je te dirai quelles mooy wax ma yow sa budget nu mu tërëw mu wax la yow foo bëgg a jëm ak Sénégal te niñ ko gën a mën a càmbaree mooy da ngay jël budget bi nga xool fukki post fukki post budgétaire yi nga xam ne mooy yu jiitu ñoom la ñu gën a dooleel ci biir budget bi boo seetee tey budget Sénégal boo jëlee dix post yu jiitu fukki postes yu jiitu bi ci njëkk mooy ministère de l'éducation nationale ñu ne ah loolu lu baax la dinaa ci dellusi si bu may càmbar ministère par ministère parce que lii introduction générale la cadre général bi lay fixé ñu ne ministère de l'éducation nationale moo ci jiitu ñu jox ko cinq cent vingt six milliards deux cent soixante dix millions loolu di représenter quatorze virgule soixante treize pour cent recette budget général bi waaye di représenter quatre virgule zéro trois pour cent ci suñu PIB mooy suñu alal gi yëpp boo ko càmbaree ñu ne lan moo ci tegu ñu ne les intérêts de la dette ñaareelu poste budget Sénégal mooy li ñu war a fay ci bor bi. moom mi ngi mat trois cent soixante quatre milliards huit cent millions loolu la wax keroog assemblée nationale ni bés bu yàlla sàkk Sénégal dina fay un milliard ci ci intérêt de la dette te su ma nee Sénégal mooy euh, boutiquier bi taximan bi marayeuse bi commerçant bi maçon bi ñooñu ñëpp dañu war a xam ni kenn ku ne yaa ngi fay lémpo boo ko yégee boo ko yégul lémpo googu mooy fay bor bi mooy bis bu ne Sénégal dina fay lu ëpp un milliard ci. bor bi ñu ne ban moo ci tegu ñu ne ministère des infrastructures des transport terrestres et du désenclavement mooy ministère bi nga xam ne moo yor tabax tali yeeg autorail yeeg ñoom seen lool it moo jël ñetteel bi avec deux cent quatre-vingt-quinze milliards ñu ne ban moo ci teguwaat ñu ne ministère du pétrole et des énergies deux cent cinquante-cinq milliards ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation tegu ci ñu tegaat ci ministère des forces armées ñëw avec cent quatre vingt dix milliards mooy suñu armée bi suñu jàmbaar yi ak suñu sécurité ci frontières yi ñoom seen ñu doog ci teg nag ministère de la santé et de l'action sociale muy paju mi paj mi ñëw na ci septième position ñu jox ko cent quatre-vingt-onze milliards ñu teg ci li ñuy wax les charges non réparties mooy parti budget boo xam ne kenn du ko affecté benn ministère waaye dañ koy bàyyi ci loxo Macky Sall ak ministère des finances am ñoom ñooy seet nuñ koy lijjantee ak fuñ koy dugal selon li ñu jàpp ni mooy seeni besoin ñu doog ci teg nag ministère de l' agriculture et l' équipement rural moom ñu ngi ko jox cent cinquante deux milliards bi tëj nag ci fukk yi mooy les institutions su ma nee institution mooy président de la république secrétaire général du gouvernement assemblée nationale au conseil des collectivités locale ak conseil économique social environnemental ñoom rek daggal nañ leen cent trente six milliards mu représenté trois virgule quatre vingt pour quatre vingt trois pour cent des recettes et zéro virgule quatre vingt pour cent du PIB yii fukk la Macky Sall jiital ne moom mooy yi ko gën a yitteel ci Sénégal ñun ñu jàpp nag nii lii méngoowul ak li mu dige digle Sénégal ak li mu wax ci exposé des motifs bi ne yooyu lay jiital boo jëlee lu mel ni renforcement de la sécurité de l'accès à l'eau potable de l'électrification rurale ñëpp xam nañ ni boo duggee ci àll bi waaye ba fii biir Ndakaaru sax problème mu ndox mu sell am na fi ci ñëpp gis ngeen ni ba léegi am na sénégalais yoo xam ne mënuñu am courant te courant bi métti na trop Sénégal seer na ak yu mel noonu boobu mi ngi ko teg onzième position bokkul sax ci dix yu njëkk te bokk na ci digge yi gën a rëy yi mu digge woon sénégalais yi boo jëlee lu mel ni l'inclusion sociale et l'équité territoriale mooy fexe ba sénégalais yépp sentir seen bopp ci Sénégal mu ngi ko def treizième position boo jëlee la création d'emploi mooy nu ñuy fexe. ba sénégalais yi am xëy parce que koo amul xëy nag dafa mel ni bokkoo ci réew mi boobu mu ngi ko yóbbu dix-huitième position création d'emploi kon boo jëlee yooyu yóbbu leen ci gannaaw lu mel ni institution yi nga jël lu mel ni les charges non réparties nga jël lu mel ni la dette intérêt de la dette waaye nga jël lu mel ni ministère des infrastructures et des transports daal leen jiital jox leen budget yu rëy rëy ça veut dire que yow xamoo lan mooy priorité Sénégal te benn bu nekk nag li tax ñu def ko fi mu ne dinaa ci ñëwaat ak sénégal yi ndax yi ma lim yi yëpp cinq yi yëpp waruloo nekk fi mu nekk nii li tax ñu ne fi mooy yenn yi seeni patron yi nekk bitim réew lu mel ni FMI fonds monétaire international wax naa keroog eh, assemblée nationale nee naa ne FMI du suñu mbokk du suñu xarit FMI dafa am ay intérêt yu mu toogal intérêt yooyu lay doxal te dinaa ci ñëwaat bu baax bu ma egsee ci infrastructure ndax dinaa leen ko woon ci terre bi dinaa leen ko woon ci autorité yi ñuy tabaxloo ak yeneen ak yeneen yu ni mel yooyu seen commande yu jóge ci biti ñoo leen naan fexe leen ba jël lu duun ci budget dugal foofu parce que ñun loolu day dundal suñuy entreprise seen xaalis ngeen fay ñu intérêt yu dul jeex pare nag léegi dañuy andi boo jëlee lu mel ni euh, institution yi institution yi ñëpp xam nañu c'est politique lekkukaay xaalis bu ñuy séddoo ñoom ci biir politique nga créé ay institutions yoo xam ne amalul benn benn njëriñ Sénégal ñooy reyante ñoom di di di ci rey su seen bopp suba ak ngoon kenn ku nekk ne man war nañ maa jox ab institution tey boo laajee Sénégal HCCT ak 16 lan la lan mooy njëriñ bi Sénégal boo ko laajee sénégalais kenn mënul na ne lii amal na njëriñ Sénégal ci fànn gi walla ci fànn gi am na yeneen yu mel noonu waaye. ay séddoo politique la yoo xam ne nooy fexe rek ba say clientèle politique kenn ku rek nga jox ko benn moccaat mu toog jàpp ñàmburam te boobu jamono yoonu askan wi newu ci boo jëlee lu mel ni bor bi dinañ ci waxtaan bu yàgg yàgg yàgg yàgg bor bi ndax boru Sénégal jaaduwut te bor bu nekkee deuxième position rek ci suñuy euh, poste budgétaire ça veut dire que am na problème waaye li tax ñuy leb ak fu bor ba di dem loolu yëpp dinañ ci dellu ci benn vidéo spéciale boo xam ne moom it euh, ci fan yi di ñëw rek euh, dinañ leen ko dégtal boo jëlee nag li ñuy wax les charges non réparties mbuxum yi ñuy def yëpp foofu lañ koy jaarale mooy fexe ba jël alal ci alal askani loo xam ne duñ ko jaare jaarale duñ ko affecté fenn bu ko defee ñu ubbi ay compte de dépôt ci ay banque privée daal fay def xaalis bu dul jeex di wëlbatiku di jël xaalis boobu am seeni entrepreneur ak yu mel noonu di leen def defloo ay faux marché wala di leen def defloo ay faux acquiescement mooy li amoon ci 94 milliards yi jaare foofu di leen fay milliards yu jeex ñoo ñu wëlbatiku daal di def li ñuy wax rétrocommission delloo leen seen wàll ñuy séddoo gundaandaat ci kaw réew mi budget bi boo ko xoolee looloo ci gën a fees looloo ci gën a euh, looloo ci gën a feeñ looloo ci gën a firndéwu te li gën a métti dinaa ci dellusi bu may wax ci wàllu institution ya geneen a geneen yi ci bëri ci ñoom amul benn contrôle boo xam ne du cour des comptes du IGE du nag du keneen koo xam ne am na sañ-sañ ne alal réew mi la war naa ko saytu lii mbokk yi la ñu bëgg présentation général ci xar kanamu budget bi lañ ciy tiire ci conclusion mooy sénégalais yi xam ni budget bi feeñalul lii priorité sénégalais yi du ci paj mi gaa soo jëlee ci dix premiers postes yi paj maa ngi si njàng maa njàng maa si mais dinañ ci dellu siwaat parce que boo seetee li ñu li ñu dugal ci paj mi ak ci njàng mi néew na trop boo ko doon méngale tey ak réew yi nga xam ne fulal nañu faydal nañu seen paj ak seen njàng la ñu dugal ci paj mi dafa réew dafa néew trop ñu ñu jàpp ni nag réew mu mel ni senegal waroon nañu gën a mën a fulal yooya muy njàng mi muy paj mi man de boo ma doon wax classel dix yi nga xam ne mooy doon priorité éducation nationale ak formation professionnelle mooy jiitu enseignement supérieur recherche innovation ñëw ci ministère de la santé tegu ci agriculture ak équipement rural ñëw ministère de l'eau et de l'assainissement tegu ci ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñëw ministère des énergies ñëw élevage production agro-agricole tegu ci ministère de l'environnement et développement durable te loolu dinañ ci ñëw lu yàgg yàgg yàgg ndax Sénégal dafa am ay menaces environnementales yu rëy rëy yoo xam ne mu ngi ñuy mu ngi ñuy mu ngi ñuy gete te xamuñu ko ma tëjee ko nag ak ministère du développement industriel et de la PMI parce que boo fexee ba nit ñi wér nga fexe ba nit ñi jàng am formation yu baax nga fexe ba mbay mi dox napp ki dox càmm gi dox. nga fexe ba énergie bu doy am ba nit ñi wax ma la sax énergie domestique rek mooy ci kër yi waaye énergie industrielle ak yeneen boo amul ay unité industrielle yu am doole yu koy transformer nga def valeur ajoutée mun a exporter jaay am devise yu rëy boobu jamono du am solo lii moo war a doon priorité pour le développement du Sénégal te lii newul ci budget bi bu soobee yàlla ci vidéo yi di ñëw bu ci nekk dinañ ñëw faram ko détaillé ko gën cee waxtaan ak yéen ba ngeen mën a xam lan la gars yi di def fi mu toll nii ak naka la waroo ak li nga xam ne mooy priorité Sénégal ñu leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ci beneen vidéo ëllëg incha allah jërëjëf. mbokk yi asalaamaaleykum man Ousmane Sonko di député à l'Assemblée nationale du Sénégal di njiitu parti politique bi tudd Pastef les Patriotes ma dellu si fas yéene seq ak yéen waxtaan ci càmbar li nga xam ne mooy. li ñu bokk ñun muy gafaga réew mi te jamono ji ñu toll yi ñëpp ngeen xam ni assemblée nationale nga xam mooy dajale ndaw réew mi ñi nga xam ne réew mi wóolu na leen ba fal leen ñu nekk député di ko càmbar war ko wote euh, ñu ne leen woon nag ci fàttali gàtt rek li waral waxtaan yi di am mooy benn gis nañ ni euh, li ñu war a wax yépp ci lii nga xam ne lu ama am solo la ci réew mi ndax at wi ñu dëgmal li yëpp lu ko dalee premier janvier ba 31 décembre 2020 nañu xam ni lii ñuy woote fi mu ne nii mooy doxal réew mi ci wàllu koom ci wàllu social ak ci beneen fànn waaye lu mel noonu temps bi ñuy jox assemblée nationale en tant que ndamu réew mi gàtt na trop ndax ci ñetti simili jëm juróomi simili nga war cee wax ci loo xam ne ci politique paj la wala mbay mi wala càmm gi wala xëyu ndaw ñi wala yenn yeneen xam nga ni loolu mënut a ne looloo waral loon ñu ne dinañu def yu mel nii parce que dañoo bëgg ñun sénégalais yi commencé miin waxtaan yi nga xam ne dafa jëm ci seen nekkin ñaareel bi mooy ni assemblée nationale bindoo nga xam ne euh, li ëpp ci député majorité bi duñu may nit ñi débat mën faa am yéen ñëpp seetaan ngeen xiiroo ngaayo bi xaste bi yuuxu bi ñu ne woon nag comme lii lu am solo la dinañu def ay waxtaan di wax nag ci suñu tàmbali waxtaan tey ne lii ñuy wax nii ku ko weddi ci nguur gi rek wala ku ci àndul rek ñun dañoo mus a tàllal suñu loxo ne ñëw leen ñu def ay débat ay débat télévisé parce que Sénégal rek ngay gis doo mus a gis ab ministre doo mus a gis ab euh, premier ministre doo mus a gis ab kilifa taxaw di débat réew démocratie yu mag yépp nit ñi dañuy dem di débat diggante opposition ak pouvoir ma ne nag muy ministre des finances muy ministre de l'économie muy ministre de la santé muy ministre des miine muy premier ministre ñun dañoo ubbeeku pour ñuy am ay débat démocratique ay débat d'idées ay débat yoo xam ne xam-xam rek a fay xelleeku pour sénégalais yi mën a gindeeku xam li xew ci réew mi tey nag ñu fas yéene woon ñëw ci dellu seeg yéen ci mbirum budget bi dañ leen ne budget Macky Sall bi dafa firndelul li nga xam ne moom la digleeg Sénégal yi wax naa leen ko te am na lu ma leen ci jukkil démb ci li nga xam ne moom la ne woon mooy ay priorité te feeñul ci budget bi comme lu war a nekk ay priorité loolu nag du guléet ndax di wax jëm jëm ca euh, ndeyjoor waaye bu jëf jotee nga jëm càmmoñ ñoo loolu ñoom tàmmal nañ ñu ko ba Sénégal léegi miin nañ ko ñu ne soo xoolee budget bi dëgg-dëgg ñett moo ci gën a feeñ bi ci njëkk mooy séddoo gi ñu nekkee ñoom te sama vidéo bi nga xam ne jàll na démb am na lu ma ci jukki ci li nga xam ne mooy budget institution yi ñaareel bi mooy li tubaab di wax perte de souveraineté mooy ñàkk moom suñu bopp ba dañ ñuy euh, joxoñ fi ñu war a jëm ak li ñu war a def suñu alal réew fan lañ ko war a gën a yóbbu wala fan lañ ko war a gën a dépenser loolu tey dafa am ñu am doole ñu mel ni Fonds euh, monétaire international ñu ko wax FMI wala yeneen dëkk tubaab yi lu ci mel ni France dañ ciy imposer lu bëri suñuy njiit topp leen ci ñetteel bi nga xam ne it feeñ na ci budget bi mooy li tubaab bi wax erreur sur les priorités mooy dañoo bàyyi farata di dàq sunna mooy li waroon doon farata dëgg dëgg dëgg léeg-léeg ñu bàkko fi jël alal gi li ci ëpp ci alal gi yóbbu ko ci loo xam ne sunna la woon te nag balaa ngay def sunna def farata ba mu noppi kon ñu continuer di wéyal loolu di ko feeñal tey ci indi leen li nga xam ne mooy ñetteelu poste budgétaire bi nee naa leen démb dama leen génneel fukki fukki budget yu gën a rëy ci budget Macky yi ñetteel bi ci yooyu mooy budget bi nga xam ne jagleel na ko li ñuy wax infrastructure infrastructure ci olof mooy lépp li nga xam ne day jëm ci ay tabax ay yoon tabax ay autorail tabax ay aéroport yu mel noonu loolu la ñuy woowee infrastructure budget bi ñu jagleel infrastructure mooy ñetteel ci budget gannaaw budget éducation nationale ak ñaareel bi nga xam ne mooy li ñuy jagleel at wu ne di ko fay bor bi nga xam ne Sénégal leb na ko bitim réew budget boobu nag nga xam ne ci suñu loi de finance ren bi budget bi ñu jagleel loolu jëm ci infrastructure ni ma leen ko waxee mat na deux cent quatre-vingt-quinze milliards deux cent quatre-vingt-quinze milliards trois cent cinquante millions muy ñetteel ci budget yi euh, boo xaymaa loolu dina mat huit virgule vingt-sept pour cent ci li nga xam ne mooy suñuy recette li nga xam ne moom la ñuy dajale ci alal pour état bi am moyen mu liggéeyee mat na huit virgule vingt sept pour cent maanaam téeméer boo jël juróom-ñett ci budget boobu euh, dama wax keroog assemblée nationale ni budget boobu dañ ko gën a orienté ci ay investissement yoo xam ne euh, luy gën a jëmmal intérêt tubaab yi intérêt étranger yi la ma ne boo jëlee rek. ñeenti infrastructure bu ci njëkk mooy train express régional bi muy TER nga xam ne ëpp na 1000 milliards ñaareel bi di autoroute euh, Ila Touba ñetteel bi di autoroute Dakar Diamniadio Diamniadio Mbour Mbour Thiès yooyu rek boo leen dajalee ëpp nañu 2000 milliards moo wax keroog assemblée ni juróomi infrastructure yooyu wala ñeenti infrastructure yooyu rek mat nañu. Euh, vingt cinq pour cent ci encore encours de la dette mooy soo jëlee li ñu leb yépp fi mu ne Sénégal li nga xam ne moom la ñu amel waa bitim réew nga xam ne mat na huit mille milliards boo ko diviser woon par le nombre de sénégalais sénégalais bu nekk mun na ne amel na waa bitim réew cinq cent vingt cinq mille francs sénégalais bu nekk kenn ku ne ci ñun amel na waa bitim réew loolu waaye bor boobu huit mille milliards yooyu. dama ne ñeenti infrastructure yooyu rek bor boobu matoon téeméer ñeenti infrastructure yooyu rek ñaar fukk ak juróom lañu ci biir te boo ci jël nag lépp dafay dellu ci tubaab bi alal gi day dellu ci tubaab yi intérêt bi dellu ci tubaab yi entretien bi dellu ci tubaab bi ñu ñi des ak bor bi ak intérêt yi ñuy fay bi ma ko waxee eh, ñu seetlu image yi dama wàcc rek ministre des finances jàpp sama loxo eh, lay daw Daouda Diallo ne ma waaw li nga wax d'accord ma ci ak euh, euh, directeur des finance nekk ci gannaaw wax la même chose may leen waa léegi boru Sénégal ñaata la ñu ne ma mat na ay sept mille et quelques milliards mat na huit mille milliards may leen bu dee lii ma leen wax nii boo ko dajalee ñoom ñëpp ëpp na deux mille milliards defal euh, rek règle de trois léegi nga xam ñaata la kon dañuy leb lu bëree bëri bëri bëri waaye ñu xam ni infrastructure yooyu nga xam ne li ca daje rek ci liy intérêt waa bitim réew moo gën a diis ci li Sénégal di euh, di leb moo gën a diis ci suñu bor moo gën a diis ci li ñu war a fay suñuy doom war koo fay suñu setaat war koo fay loolu nag du woon lu ay du su ñaar yi amuloon ñaari mooy réew mu mel ni Sénégal nga xam ne tey nit ñi fajuwuñu bis bu ne ngeen dégg njaaxum yi am ci hôpitaux yi te loolu mooy ndakaaru ndax boo demee ci àll bi nee jigéen ñi ci ay saret lañ leen di teg pour ñu dem wasini léeg-léeg ñu ñàkk seen doom ci kaw saret wala ñoom sax seen bakkan des fa nit ñi lekkuñu ba suur tey ñi ngi wax insécurité alimentaire ay million de sénégalais tey ñu ngi ci zone insécurité alimentaire mooy lekk gu doy waaye lekk gu baax amuñu ko ci jamono joo xam ne école bi yàqu na yàqu goo xam ne gis ngeen problème yi étudiants yi am tey sur les lu ëpp trente mille bachelier ñoom ñu ne dañ leen di orienté ci université publique yi ñëpp xam nañ ne université publique yi mënul jël bacheliers yooyu foo laal daal ci Sénégal mi ngi métti xanaa kay balaa nga naan naam ne fa balaa ngay xalaat ay autoroutes yu rafet ak ay autorail yu rafet nga fexe ba nit ñi wér nga fexe ba nit ñi jàng nga fexe ba nit ñi mën a am liggéey lu sutural seen njaboot ak seen way wayjur waaye nga ne fa loolu ñëpp ne maa ngi dem jël xaalis bu dul jeex def ko ci infrastructure bi ñaareel bi tax loolu garaaw mooy su doon dañu ne sax infrastructure yi ñuy tabax dañuy fexe ba mu doon luy xettali sénégalais yi fexe ba sénégalais yi ñu tolloole leen ndax xam ngeen ni am na ay gox ci Sénégal boo fa demee benn tali sax doo ko fa gis département bu mel ni na Yoro Foulah mooy département bi gën a rëy ci senegal ci superficie benn tali bu ñu goudronné sax amu fa tey foo dem ci Sénégal même problème la doo gis tali bu ñu goudronné bu baax doo gis euh, train bu fay egsi doo gis aéroport wala aérodrome bu tax ñuy wax lu dul quelque dëkk ci Sénégal nga jël lu mat ay milliards yi milliards waaye soo koy jagle yaa ngi koy yemale pratiquement ci ay infrastructure yoo xam ne nee nañu diggante ndakaaru ak Diass la loolu li ko waral nag mooy tubaab yi ñoo ñuy joxoñ nañu seeni infrastructure tabax leen ci lii li ko waral mooy ñoom dañuy bugg gannaaw bu ñu lebalee xaalis pour ñu tabax ay infrastructure ñoom seeni entreprise ñooy ñëw réaliser infrastructure yooyu tubaab yi dañoo organiser ñoom xam fi ñu bëgg a jëm donc suñ la joxee ay milliards dañu naan bugguñu nga dem tabax ci ay piste rurale ndax boo nattee tey li ñu jagleel programme yi nga xam ne dafa waroon a xettali waa kaw gi ci wàllu infrastructure lu mel ni Puma lu mel ni euh, PUDC pratiquement ci seen premier phase bi PUDC 42 milliards lañ ko def matul sax 20 pour cent ci li ñu concentré ci investissement fii ci biir Ndakaaru kon tubaab yi loolu arrangé wu leen ñoom leen arrangé parce que soo doon def ay piste ci àll bi ay entreprise sénégalaise nga koy jox waaye ñoom li leen arrangé mooy nga def loo xam ne seeni entreprise yu mag yi mun nañu ñëw am fi ay marché moo tax dañ la naan ñun dañoo bëgg nga tabax ab terre mooy train bi ngeen di dégg bu ko defee comme Sénégal amul entreprise mun a def terre Alstom di ab société française boo xam ne mi ngi woon ci ay jafe yu rëy ñu ñëw jox ko bi dañoo bëgg nga tabax ay autoroute waaye autorités comme nee nañu suñuy entreprise sénégalaise amuñu technologie bi te loolu muy lu ñu mën a werante ndax suñu leen jàppalewoon tuuti rek ñu def ko léegi nag bu boobaa da ngay jël entreprise française yi wala entreprise chinoise yi su dee Chine moo la lebal entreprise chinoise nga koy jox su dee Turquie moo la lebal entreprise turque nga koy jox bu dee France moo la lebal entreprise France nga koy jox gannaaw bi nga ko joxee da danaan duma ma fay lempo ca dëkk ba dinaa réaliser jël bénéfice yi yépp yóbbu waaye du ma fa fay fukki dërëm ci lémpo ñaaral bi ci tegu mooy euh, di ngeen ma defal ay yombal yoo xam ne dette intérieure bi ngeen di dégg nii bor bi nga xam ne Sénégal ameel na ko entreprise yi entreprise yooyu bokkuñu ci de doo leen ci dégg mukk ndax ñoom dañ leen di dekeseel léegi tubaab bi dañu am sax yeneen méthode yoo xam ne dañuy fexe ba soo jëlee contrat wu autoroute bi jógee euh, aéroport Diass war a dem ba mbuur chinois yi dañ leen ne da ngeen koy considérer comme exportation ci chinois yi mooy dañ leen di livrer autoroute clé en main noo mënee livrer autoroute clé en main loolu day tekki ni autoroute bi Chine lañ koy